sëriñ Touba liggéeyal ko te mu sell moom rek am njariñ te tey ëllëg ndax kere bi ñu joxee liggéey bi ñu di ko liggéey dafa am lu sunum xel dem ndax kere bi nga xamante ne bi sëriñ Aliou yi dafay jóge Bawol ànd ak ay bokkam di siyaare ji sëriñ Touba Jolof yor addiya yor seeni addiya ba ñu demee sëriñ Aliou yi nee na ba ñuy àgg fa sëriñ bi bisub gaaw la waxtu sen di bëgg jot bañu aggé ba tek seen bagage ñu noddu sëriñ bi taxawal julik tok sen néna mom mu am tawfiix yi bokku ci ñu taxaw ci sapp su ñëk sa bam ci taxawé sëriñ tukkulóor bu ñu wax cheikh saada tall ku baax dal di japp ci waggi sëriñ Aliou ñoddi ko ñoddi ñoddi ba ca ginnaw mu bayiko fa fa sëriñ Aliou taxaw ne ak sëriñ mom mu taxaw fa sëñ Aliou nee na ma wëyal sax julli foofee ma Seex Saada taxawloo nee na ba nu jullee ba sëlmal ba ab diir li sëñ bi doon def àgg mu ne Aliou Diouf ma wuyu mu ne ma ñëw toog ci peggam mu ne Saada Tall Saada wuyu mu toog ci peggam mu ne Saada Tall tuubalal Aliou Diouf mii Aliou juuf jéggalal Saada Tall ngir jëm yàlla Seex Saada jox Aliou sëñ Aliou loxo sëñ Aliou jéggal ngir jëm yàlla sëñ Tuubaa daal di ko ne saada tàll mii dafee ñëwoon di sàkku mbooloo ma ma ko booleel ñu defareel ko këram ma bëgg nga ànd ak moom boo demee nu mu bëgg këram mel def ko mu daal di ànd ak Seex Saada Tall dem euh, euh, dem këram liggéey liggéey ba ba mu mat kon rakk maanaam ca biir loolee ba ko Saada Tall Saada Tall ñoddee ba julli gi àgg bokkam yi ànd nag moom da caa am koo xam ne ki de ko ne sëñ mu wuyu ko mu ne ko ah, yow de bokkunu mu ne ko lu tax mu ne ko ah, man duma joge bawol ba fi wara gi Serigne Touba dem ba sa Serigne Touba kenn di ñod di taxaw sama digg Serigne Touba ku ko defon julli gi yaq suñu yàlla tek tekkum yàgg mu ne ko ah man di bawol gën bayiko ba fi romb nañu ay jakk romb nañu ay juma xëccoo ay rakk indiwuma de ade ji ma andi serigne bi kep mu nangol mako moy mooy bëgg dal na koy ta tayit man ali julli gi serigne Touba jité suma ko yaqé duma yaqku bam ba lo rek la ko serigne Touba wo wax diggam ak Sada Tall ma xam ne kon nag ka xëccee rakk yooyee bu ñu dee dema dema dem bañ di nu yeesaloo jumaa te jumaa julli rek lañ fay def ak jàng kon liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak taalibe gu rafet am na njariñ la ca doliku jàngal na leen taalibe ci ba muy dem xomaak te ànd ay bokkam te kenn ku ne yor sab yóbbal sëñ Aliou nee na damaa caa boole der wenn melo woo xam ne dama koo defar ba mu tedd ma boole ko ci la ma doon yóbbu nee na mooy bis bu gaaw lan àgg ci Sëriñ Tuubaa fekk mu toog ci loxo xaw a yëkkatiku fop këllu benn teg ca suuf nee na mboolem ñu àndal ku si boo dindee la nga yor muy xaalis bu mu joxoñ la këll ba nga sotti ko ci nee na yàlla def ba ma dikkee man a yëkkat ëmb bi nee na sëriñ Tuubaa ko nangul ci ñaari loxoy boppam morso sooy ba ma ko takkoon nee na moo ko tekki tàllal der ba dox ñetti jéego ci kanam julli ci ñaari rakkaa door a dellu siwaat mu ne xol bu sedd bobé mo am ci képp ko ma andal sëñ bi joxuñ la ba nga sotti ca sama addiya jëm mu nangu ko ci ñaari loxoy bopam loola moy suñu yéene ci caabi yii nu leen jox nako ko sëriñ Tuubaa man ba nangoo ko ñaari loxo yalla na tombé ngeen xemme ma lii nu leen di jox noonu ba nangoo ko loolu leneen la ca doli ko ñu gattalé ko mom la ca doli dolli kuwaat ci sëriñ Aliou ak sëriñ Tuubaa bi yàlla dogalee sëriñ Aliou sëñ wutaat ay addiyaam ñëw njaarim di ko indil sëñ Tuubaa bi mu dikkee sëñ sëñ Tuubaa daf ne nañ ko wooyale Ibra Fall ñu wooy Cheikh Ibra bi bi bi Cheikh dikkee sëñ bi ne nañ génne ñëpp ba des ñoom ñaar bañ fa desee ñoom ñaar sëñ Aliou yoo ne sëñ Tuubaa ko ne yéen ñaar ñii suñu borom ba moo a sant ma berndeel leen daal ne li ma leen di berndeel nag attaayal daal ne attaay ji leen di berndeel li ma ciy def kenn mënu ko ci def ku man mii nee na daal di faf muquraas ga samp ca taal ba mattum jalambaan ma ronu ko mu fa satale ga wékk ca muquraas ga mu mu tàng ba mu bax sëñ Aliou nee ba ba sëñ di jël satala ga ci biir safara ba Seex Ibra ci taalib dana jéy bëgg nangu satala ga sëñ Tuubaa ne ko nii mu delloo mu bañ a jël satala ga sëñ Tuubaa ko loo ci jublu mu ne ko tàngaay wi ak sawar wi rek nee na sëñ Tuubaa wax ci làmmañu boppam ne ko sawaru addina ma du ma du ma lakk taw àllaaxira duñ deggante sëñ Aliou neena bi sëñ Touba sa maré barade bi jox ñi naan neena neeg ba di room bu bari suuf neena mané bismillah nan tuuti fab sap kaas sotti ko ci suuf jaxase sëriñ bi delu jox len benen kaas neena mané bismillah nan tuuti fabaat sap kaas sotti ci suuf jaxase di ëmb suuf sosé bam mu suuf soosee bi ñaanal len bam li la ma sun borom santan ci man ngeen ñew yewiko ko Aliou fa joggé ba ma demee bawal dama wut ay ndaw jox leen ay fas ne leen tasaaroo leen ci biir bawal dëkk bu ngeen dem kenn ku ne dëkk bu mu dem na tiim teen ba ne bisimilahi fab ca suuf sa sot ca teen ba dama bëgg ñëpp fu defaru loolee mu defal nag jaajëf jii ngeen nuy jaajëfal ak ñaan gii ngeen nuy ñaanal moom leen bëgg tey jii képp koo xam ne kii liggéey bi saw ñaq dem na ci mbaa nga yéene mën ko cee def mbaa nga dégg suñu kàddu mbaa nga fekk ko ñun ñëpp suñu borom boole di jéggal ñu def ñu am defaru àddina goog alaxira loolu rek mooy kàddu yi nga xamante ne bii mën nañ koo tënk jottali la ko mbàkke tey ñaan sëñ bi yàgg laa jox ndigal nga yàgg ko jottali taalibe yi yàlla na nga àgg te bañ am menn num ndog kon sëñ bi nee na bisimilahi taabi yaa ngi noonu nii nu mandargaal ko der boobee sëñ sëñ Aliou joxoon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangoo ko ñaari loxoom kon nu ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thank you.